daa am loo xamante ne moom nga ciy jàng euh, boo jëlee quatre-vingts milliards yi nga xamante ne moom la wax ne moom lay jox ndaw ñi ci wàllu liggéey soixante-cinq mille boo ko dee xool xale bu ci nekk par mois bu doon da ko def ku ci nekk mu nekk euh, salaire égal ku ci nekk dina am par mois cent vingt cent vingt mille mooy li nga xamante ne moom lay am cent vingt 123000 yooyu nag moo lay li nga siy jàng mooy ñëpp du ñu am mille am na xale boo xamante ne peut-être dina am 70000 mais am na koo xamante ne peut-être dina am près de 150000 c'est-à-dire que li nga ciy jàng mooy li nga xamante ne sax moom lañ leen wax comme en tant que fonctionnaire li ñuy am loolu est-ce que réglé na problème mu ndaw ñi mooy benn bu njëkk bi ñaareel bi lii aveu mooy wane ne li astu wax dëgg sànq effectivement loolu la mooy il faut que ñu créer environnement des affaires dañ ko fi créé wul. échec boobu ñu def ñu bëgg a absorber ndaw ñu am feneen fu ñu leen dugal c'est aujourd'hui en 2021 suite à des événements le président soog wax ndaw ñi dégg naa leen gannaaw ba mu fi nekkee 2012 ba 2021 mooy soog a wax ndaw ñi ne man dégg naa leen maa ngi leen di soog a dégg gis nga DER bii ñuy wax le 15 décembre 2020 dañoo def seen lancement daat ne am nañu financement wu 74 milliards pavé bi ñuy wax ba coow lii di am DER surtout DER boo fa demoon bëggoon a dañ naan la momentanément indisponible mënoo inscrire lépp ñu tëj ko il a fallu ko coow li am dëkk bi tàng président wax pour ñu réouvrir na nit ñi mën nañoo inscrire pour am li nga xamante ne moom mooy ay financement et puis plateforme bi doxul sax. justement am na ba léegi day am problème léegi nag leneen dafa am. mais qui yor DER mais lan mooy lan mooy gérer. lan mooy lan mooy créer emploi lan mooy créer emploi dans un pays. parce que créer emploi mooy lan. créer emploi mooy mettre. les conditions adéquates pour nit ñi mën a liggéey condition adéquates yooyu mooy leen mooy d' abord qu'il y ait entre formation emploi quand on dit que ndaw ñu amuñu métier man parfois dama ciy am réserve gis nga kër yi boo duggee am na ci koo xamante ne lu mu bon bon mës na def métier sàngam ci souvent bu ja ñi xanaa ñu jaar université mais xale boo xamante ne daa yaroo ci kër màggee fa amul benn métier benn benn benn benn souvent lu ñuy xoolaat la léegi daa leneen loo xamante ne dafa am lan mooy créer emploi yàlla a secteur primaire secondaire et tertiaire. Hmm. secteur primaire mooy li nga xamante moom mooy ressources yi. ñun dañoo am problème tey jii nii Espagne mi ngi fiy ñëw pour wax ne dañuy delloo si suñuy ndaw am nañu fulla aba ñoom yabuñu ñu dañoo am fulla ci seeni réew ñun à travers ñu ñu jiite peut-être ñoo deful lañ war a def et pourtant Espagne jox nañ leen ay terre ay suuf yoo xamante ñoo ngi fay bay li ñuy bay matière première boobu nga xamante ne moom la ñuy produire muy ay fruits dañ koy jël yóbbu ko directement seen dëkk yi transformé ji ko ñun amuñu sax une industrialisation boo xamante ne mën na transformer li ñuy bay xam nga lan moo waral problème bi bu dee yow tey jii ne da ngaa produire nga am ressource matière première boo xamante ne am na lu la jural nga produire lu baax mais bu dee yow da ko jaay directement samu mu jaar par la voie d' loolu moo lay jural da ngay perte ay dividende li may ñëpp xam nañ ko te perte ay dividende mooy doo mën a créer emploi ndaw ñu duñ mën a liggéey mais leneen dafa am ñi nga xamante ne ñoo fi nekkas néew xeex tey jii nii ba am lu ñu fiy représenté dans ce pays là. nekk des entreprises mais marché day ñëw ñu jël ko jox ko koo xamante ne c'est une entreprise étrangère duñ ko jox une entreprise euh, euh, local exemple rek sànq ñu ngi koy wax euh, li nga Sator moo ne la ñuy defar fee di université Amadou Mahtar boobu sur fonds propres la kon suñu xaalis lañ daj la jox ko état ne ko tabaxal mais bi mu koy jël du ko tabax joxu ko sénégalais kom ko jox une société étrangère avec ça ñu bëgg ñoo xamal ne ñoom kat ñu ngi ñuy bàyyi xel ci wàllum ci wàllum euh, emploi loolu man mënu ma ko nangu état du Sénégal moo nekkoon ci processus signé processus signé li nga xamante ne mooy la les accords de partenariat économique Guy Marius Sagna ñaata lañ ko ci jàpp activistes yi ñaata yoon lañ leen ci jàpp nañ leen li enragé wul Sénégal e, hmm. le l' agriculteur sénégalais ne peut pas compétir avec l' agriculteur allemand mais néanmoins teewul ñoom ñu ngi ñu ko doon force bëgg ñu ko force pour ne dañ koy signé tout cela moo fi am ci réew mi